ku nekk ci turam ak ci santam di ci jiital Gàddu Diouf mi nga xam ne moom moo créé les volontaires pour l'indépendance et le progrès muy mouvement bu nga xam ni yàgg nañ ko xam ci Sénégal mu exister un peu partout wax na ko léegi euh, borom kiy jaay gerte caaf mi ngi ci borom restaurant bi mi ngi ci ferrailleur bi mi ngi ci maanaam li ci ëpp si secteur informel la ñu nekk ñu toog tey banlieue am bégte mu rëy dellu si fii ndax fii miin nañ ko mais ci beneen anam ndax defe naa ñu bare bi ñu jëlee kàddu tudd nañu commissaire boobu nga xam ni tey dafay wër di yàq deru Ousmane Sonko te defe naa ni moo daan toog fii di tagg Ousmane Sonko waaye moo daan toog fii di xas président Macky Sall kooku nag du ñu àgg ci turam jaru ko waaye dama gis ku jël rek tudd nga turam ndax fii lañ daan toog kon tey mbégte la am ci dellusi di wax lañu daan wax changé wu ñu benn yoon ba pare ànd sek ku nga xam ni mooy président Ousmane Sonko nga xam ni valeurs yi ñu doon incarné muy fulla fayda fit jom ngormaanu maandu dëggu yaru jub doylu loolu mi ngi ci usmaan Sonko nga xam ni moom lañ doon seet ca kële waaye ci kii lañ ko gis tey réew mi nag dañu toll fu nga xam ni ñëpp dañu war a jóg takku taxaw parce que dafa am ñu nga xam ni parce que Ousmane Sonko jub na gën leen jub ëpp leen fulla ëpp leen fayda ëpp leen fit tey dañuy ñëw di taxaw di ko tuumaal guddeeg bëccëg ci yu ñàkk fayda yu nga xam ni ñoom ci seen bopp ñëpp xam nañ ni loolu dëgg la muy ñooñu nga xam ni dañ ko day jéem a porter plainte ba li ci am am ci ñuy réccu naan lii jaru ko mais nañu xam ni ils sont responsable de la situation que vit le Sénégal aujourd'hui il faut que loolu leer nañ tey mënuñu leen seetaan ñuy taal réew mi ñoom ñooñu nga xam ni ñoo indi li nga xam ni plainte la bu nga xam ni tey gàdd wax nga ko defe naa ni yow porté nga plainte waa jooju nga xam ni dafa luubal suñu vingt et quelques defe naa dem nga tey tribunal porté ko plainte ñi ko porté plainte bare na ñi ci bind bare na kon loolu tey warul tax ñuy jéem a taal réew mi ndax te nag dóor fayu te dañu sonal président Ousmane ko fi mu nekk mi ngi tëdd feebar am ay problème ba léegi delloowuñ ko passeport am te boo xoolee Euh, contrôle judiciaire bi levé nañ ko parce que dossier ba jébal nañ ko chambre criminelle kon lu ñuy xaar pour delloo ko euh, kayitam passeport am dafa am droit jot ko waxuñu ni day dem faju ji demul faju ji loolu moom moo koy décider ak mbokkam ak parteem waaye dafa am droit jot ay papier am loolu doon lu nga xam ni lu am solo la lu ma buggoon wax tey ci jotaay bi parce fii ñu ngi Pikine ñu ngi ci banlieue bi ñu ngi fi xam ni fii la ñu dëkk ñun ñëpp parce que fii la ñu jóge fii la ñu sosoo waaye nag pikin dafa war a bàyyi nekk dortoiru ñi nga xam ne dañuy liggéey dakaar dellu si loolu dañu bëgg bu Ousmane Sonko jëlee réew mi ñu jël Pikine mettre ko en valeur parce que y a des têtes qui sont là y a des possibilités qui sont commerce qui loolu yëpp dañ ko war a développer yàgg naa wax ci secteur informel bi fulaa luñ leen fayda luñ leen te ñoom ñoo yore économie bi muy transport muy chauffeur taxi yi muy euh, jaaykatu gerte yi comme ni ma ko waxee muy maçon yi muy mécanicien yi ñooñ ñëpp ñoo yore économie réew ndax liggéey moo yor réew muy secteur privé ñooñu dañ leen war a fulaal mënuñu nekk di jël ay entreprise étrangère di leen indi fii Sénégal ñuy jël suñu ay richesse di dem mu Mohamed Diatta wax na ko léegi pétrole bi ñu am narut a jëriñ Sénégal te loolu jaaduwul gàddu wax na ko léegi li ñu am ci pêche agriculture ak élevage bu ñu ko développé Sénégal mën dumbal boppam mais dañ fi nekk di caaxaan guddeeg bëccëg suba ngoon jël suñu ay milliards di ko lekk ba pare di porter nit ñi plainte di sonal nit ñi loolu dama ni na dakk léegi léegi léegi léegi te waa Pikine dinañu ko dakkal bala may ñëw fii di toog ànd na gàdd def nañu visite ci kër yu bare yu nga xam ne ñu ngi bokk ci VIP ñun ñoo dem fekk leen ñun duñu ay politiciens yu nga xam ne dañuy toog ñu ñuy fekk si fi mu ne def nañu ay kër yu bare avant ñuy ñëw fii lii conclusion la bu nga xam ne dañu ñëw rek sànni ko ci mais waxtaan nañu population bi donc tey maa ngi présider euh, cérémonie de fusion entre waa volontaire pour l'indépendance et le progrès muy via pi ak Pastef les patriotes parce que VIP tey à partir d'aujourd'hui bokk nañu ci ñi nga xam ni ay patriotes lañu yàgg nañu doon ay patriote yàgg nañu am fulla yàgg nañu am fayda waaye comme man ni ma yore woon sama parti ñëw seey ci Pastef noonu la ñu ñëwee seew ci Pastef te Pastef dina leen teeru dina leen teral dina ànd ak yéen pour liggéey réew mi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf taxaw yéen ñi ñëw fekk si ma ci li nga xam ne ni moom laa bëgg a def mooy en tant que président VIP les volontaires pour l'indépendance et le progrès dama bëgg suñu mouvement bi seey ci Pastef yàgg noo na nekk ci Pastef gaa mais du ñoo bëgg mu nekk loo xam ne c'est officiel moo tax ma woo sama ka xarit sama ka maanaam boo xam ne nii man nag moom on a fait plus de plus que dix ans danañ danañ dox ci mouvement VIP avant lii. kon nag tey bu amee vraiment jot jooju ak fulo boobu ak détermination boobu ñoo bokk ci euh, Pastef parce que damaa gis lu ma ko jaral monsieur Birame Khoudia Lo. merci beaucoup je vous remercie votre cas. jërëjëf donc maa ngi lay sante di la gërëm di wax ni Ousmane Sonko aussi da ngeen ko jox carte VIP am. parce que ah. moom mooy premier VIP. <laughs> du Sénégal dëgg la jërëjëf. damaa damaa fàtte loolu. <laughs> am na benn carte boo xam ne nii. spécial spécial. VIP. Mhm. président Ousmane Sonko. Mhm. incha allah dinaa ko jël yëkkati teg ko merci beaucoup président. jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup.